madame le ministre euh, Aminata ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises Ce ñu def pour yabal ñu fi, nous fi marché au ci Touba euh, pour taxaw bokk ak Nakar, bokk ak pisse, bokk ak ni marché au muy bu metti bi nga le euh, ministre du commerce dafa daf mais comme nous xam nañ mercredi jour conseil des ministres mu yabal ma man ak délégation ministère bi avons ñu ngeen dem ngeen fekki suñu mbokku commerçants yi nga xam ni Touba ngeen dem safonté ak ñom bokk ak yeen naxar bi ba tok déglu leen waxtaan ak ñom li nga gouvernement bi la pour ñew taxaw wax ko ci

mooy ñu réorganiser marché yi mooy ñu moderniser marché yi ci kaw programme bi nga xam ne programme de modernisation des marchés moom la ñu teg programme boobu dafa jël li nga xam préoccupation bi ñu am ni tey ci lakk bi dafa nekk ci programme boobu maanaam mooy lan mooy moderniser marché yi ba pare sécuriser leen ci kaw loolu ñu ne dañuy defar marché central, yi nekk ci ci ci ci ville yi dañ leen di njëkk defar li nga xam ne am fii Diourbel moy nga xamni ni marché central bi moy marché central bu ndumbe djop programme bi fofu la ñëk commencé commencé nañ ko exécuter té def nañ fa pratiquement euh, enveloppe bu 300 millions ñun ak wa AGETIP ñu ngi liggéey pour que euh, marché bobu ñu mën ko réhabiliter fi ci Touba dañu prévoir def fi ben marché interrégional marché intra-régional bobu, dañu am ñaari ñaari bërëb yuñ ko wara mëna def ñu ne euh, rappelle-moi le nom. Girandal Ngiraan daal. ou bien qui euh, ci marché Ocass. loolu euh, décision bi pour wax fan lañ koy def daf dañ ci nekk ci ligue, ñun ak kilifa dëkk bi muy Serigne Touba ak Andak ak ak sunu naatango yi nekk AGETIP. bés ba am décision ba nga xam autorité religieuse bi joxe na ko projet bi foofu lañu koy foofu lañ koy def.

mi ngi sunu biir te duñu bàyyi ñu wéet te loolu rek doy nañu sëkk ndax moom mooy fi nekk Serigne Touba ñi dalalee dalal sunu xel wax ñi yëg na ko te te na ko ñu ñaanal loolu day mel ni lañ ñàkkoon lépp daante day desiwaat sant bu baax nag sapeur pompier bi nga xamante moo nekk fii ci Touba ak mboolem ñi ko jàppale ñoom ñëpp gis nañ seenu taxawaay ci sunu wet ba mu ba léegi amul dara loo xamante ni eh, rëcc na ñëw ñu def ci lu ñu mën ak lu ñu kon mboolem ne ne cant nañ police gendarmerie mboolem ñi nga xam te mooy service yi nga xam te ñoo aju ci wàllu état rek kenn ku ne def nga la war ci lakk ngir fas yéene mu saafara mu jeex di sant bu baax mboolem service commerce yi nga xam te ñoo nekk dëkk bi muy département bu Mbacké muy Moussa nekk fa ak Diourbel euh, Adama moom itam nekk fa ñoom ñëpp kenn ku ne ba yëf xewee da ko def sa mbirum bopp yëkkati ko ànd koog ñun ba mu jeex tàkk kon wax di yàlla ñun commerçant biñ ko déggee waaye fi nii wax di sunu xol sedd na xam ne wax di am natt mënut a ñàkk ci jullit bu mu sunu koy wax di yàlla sunu xol sedd na te wóor na yàlla it xam nañu wóor na yàlla balaa ak sëñ bi danañu waxal ëpp lool kon nag ñoo ngi gërëm commerçant sunu kaw sunu kaw la dal loolu nangu nañ a yoo xam ne lépp lu war a am incha allah buñ ci waxtaanee ak suñuy kilifa lépp loo xam ne jàpp nañu war na ci ñun dinañ toog waxtaane ko a jaar wàllu euh, dégâts yi métti na loolu wax dëgg yàlla fu su ko takk wees na ko ndax lakk gu mel nii yaakaar naa musta am marché occas ma lakk gu ne am na fi dégâts bu ne am na fi waaye li fi yàlla man am musuma ñu a tàmbali rek daje moo xam te moom la góornóor ak préfet pare war a def fii ci dëkk bi ajjuma lay war a doon incha allah après 16 heures ca mairie ba boobaa fa la ñu daal évaluer lépp seet leen lu ne la cay la cay impact ñu ñu ñu joyal ko fa dogale ñuy jëli fa lañ koy jële incha ndax ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ambulant yi bi mbir mi xewee tiitoon nañ trop tamit parce que amuñu ñu lu nga xam ne moom lañ nekkee ci dëkk bi di ko yaxantu ndax gis nañ ne dëkk bi amul beneen secteur mën a liggéey bu dul commerce dëkk bi commerce moo fi ëpp doole ndax amul amul géej bi ñu mën a nappee ji wala amul beneen secteur usine wala dara commerce rek moo fi gis nañ tamit fi jamono toll xale yu bëri ñu ngi dugg ci gaal yi di dem di ñàkk seen bakkan kon bu yàlla defee tamit ñun ñu nekk ci bi di liggéey ba suñu borom dogal tiis bu mel ni dal suñu kaw ñi nga xam ne ñooñu féete ak mag féete ñu ay kilifa ñoom ñëpp ñu ñëw àndaat ak ñun ci tiis bi wax dëgg yàlla tiisoon nañ mais suñu xel dal lu ñu nekk soo ba ñoo ngi ci te tamit lépp loo xam ne ko dana dalal suñu xel bu baax ñi ngi ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ ci damay bañ a lim di juum ndaxte démb bi affaire bi amee ñu jàppoon ñëw ànd ñun kenn noppalu démb ba léegi kenn noppalu depuis bërki biig ba léegi sapeur bi amuñu fayam ndax keroog une heure ba fi may wax ak yow gisuñu ko benn yoon mu déplacé wu mi ni fii di ñu gunge ànd ak ñun ci liggéey bi police aussi tamit noonu ak autorité yi nga xam ne ñoo nit ci dëkk ñun bu ñu tiitoon it amuñu lenn fi mu toll nii loo xam ne nii des na ci suñu xel loo xam ne tiitaangeel wala dara. léegi heure waaw marché ambulant yi fi mu toll nii li ñu yàqule mënaguñ koo wax ñu ngi doon dem ba léegi ñu ngi recensé mais ba léegi matalaguñu ndax tey ñu bëree bëri ba fi ñu ba léegi eggeeguñ ci ñoom pour bind leen te tamit dañuy ñaan yàlla comme lii nga xam ne noonu la demee te dégg nañ kilifa yi li ñu wax ci wàllu defaraat yi ñi ngi leen di ñaan tamit defaraat bi tamit mu bañ mel ne comme fi daan jaar parce que dañ daan wax defaraat ñëw euh, fekk ay xale yu ne ci mbedd ñu dégager ñëpp bu ko defee loolu lakk gi sax dañaan moo tane woon lu mel noonu waaw booba daa amul organisation booba doon amul organisation waaye amee organisation ku ci nekk fañ la fañ la teg danga nga fa toog waaye dañuy bañ tamit li daan am mu mu am ñu ni dañuy dañuy defar or que dañuy defar dëgg la ñun defar rek lañ bëgg parce que doomu réew mi lañ amuñu lu réew mi te yëpp ku ñu tamit defe naa ne ñun nga ñu ko defaral mais nag li ñuy bañ mooy defar boo xamante ni buñ ko defaree ñun ñu ñu ko defaral or au suñu xol neex ci suñu xol di ci tàng loolu tamit daanaka du ab defar ñun li ñu bëgg mooy képp koo xam ne defaral nga ñu parce que tamit réew yi nga xam ne moderne nañu gënuñu réew ñoo bëgg suñu réew